ñëw ci actualité rek parce que euh, ñoo ngi koy waxtaanee Mboro surtout footballu Mboro muy équipe bi nga xam ne moo nekkoon Ethics football ñu changé ko def euh, ñu koy waaja changé wala changé kuñ ko mais ñu ngi ci yoon bi tuddee ko Niayes FC club yow en tant que président commission sportive zone Mboro yow ban ban ban jàngat nga am ci loolu ci côté boobu. voilà foofu moom euh, dinaa si wax parce que foofu itam man maay président à l'organisation bu ñaay FC.

dañoo bëgg dañuy bàyyi activité football waaw dañuy dañuy désengagé wu te yéen sax defe naa ne war ngeen yore lettre bi lettre bi parce que circulé nañ ko fu nekk lettre voilà c'est ça donc bi ñu waxee loolu ñuy gis lettre bi xool ko ñu ne ah kon léegi ni ñuy ñun ñu woote réunion rapidement Kër Mbaye Sow bi ñu demee toog waxtaan ne ah ñii kat dañoo désengagé wu si affaire bi te fi mu nekk ñun ñoo ko yor léegi nan la ñuy def ñu ne kon nañ soxla nañ changé nom bi ñuy xalaat ñu xalaat ñu xalaat ba ñu ne nañ ko tuddee Niayes FC comme ñoo ko yore te ñun suñu mandat jeexagul kon ñu ñoo ñun ñoo priorité pour ñu def loolu. CD boobu ñu woote CD bi ñu daje fa CD bi yëpp la ñu woote woon peut-être am na ñu ñëw am na ñëwut bon bi ñu demee toog woote ñu waxtaan si affaire bi bon ba d'accord naka dañ koy changer tour nangam procédure yi mooy récépissé bi amuñu amuto amuñu récépissé ñu ñu dem déposer ji récépissé tout ça récépissé bi génn ñu déposer euh, kii bi changement bi tout ça ñu yóbbu ko fédération mu ngi woon en attente léegi après gars yi ne ne moom mi ngi en attente mais suñuy def tirage su te changement bi jàllagul euh, étude de Mboro la ñu def léegi euh, biñ tiré ba pare après changement bi jàll ñu joxaat ñu benn lettre comme quoi que ne changé nañ tur seen lépp légal na léegi étude de Mboro lañu lañu lañu la ñu kii quoi bon léegi étude de Mboro euh, bi ñu waxtaanee ba pare ñu jël benn coach bi nga xamante ne mi ngi Dakar ak capitaine bi fi nekkoon Ibou Sène jox ko jox ko addition parce que moom tam dafa def formation euh, coach coaching après bon ñu jox leen équipe bi ñuy préparer à Dakar. parce que ñun loolu tam li ñu si doon xool lu tax ñu def loolu parce que équipe bi équipe mu Mboro la franchement euh, te ñi ngi préparer assemblée générale assemblée générale bi ñu koy préparer te ni ñu koy préparer bon dafa dafa xaw a yéex. ndax tey ren euh, ren bi ñoo ko am defe naa ren tax mooy doon doon dernier mandat bi quoi dernière année bi waaw voilà pour falaat dañ lay doon ñu ngi préparé assemblée générale boobu pour suñu wootee Mboro la ñuy wootee ñëpp suñ ñëwee ñi ko bëgg dinañ jël su nekkee ne tam ñoom ñi ñoo koy téewaat te buggaat nañ tam te ñoo koy téye te wóoluwaat nañ si ñu jox leen ko parce que affaire bi équipe bu Mboro la bien vrai que nag léegi mi ngi mi ngi basé wu à Dakar. wala à Dakar ah, waaw ñi ngi entraîné Cambérène à Dakar préparé nañ bi ngi defar set lépp fii la ñu koy defaree secrétaire général bi dara changé wul si équipe. foofu la ñuy préparé mais foofu la ñu waaw bon football bi léegi. dañu ne dañu choisir Tivaouane ou Thiès pour ñu fay recevoir parce que terrain d'engagement lañ bëgg lañ bëgg di recevoir quoi euh, euh, Thiès ou Tivaouane bon Tivaouane terrain bi pareegul kon xam naa ne premier match si Thiès lay doon ba Tivaouane bi pare ñu ñu recevoir. ñu ñuy recevoir foofu temps yi tax gars yi dem nañ dem woon mais gars yi dem nañ match amical bu amoon foofu. bon loolu la rumeur yëpp man loolu si am jàngat ak affaire yi bon am na yeneen rumeur yu daw nag yooyu noonu mais peut-être dañoo toog a gudd rek ñaari camp yi dañoo voilà ñaari a gudd mais suñ toogee waxtaan xam naa ne eh, bëgg-bëgg bi yëpp mooy équipe bi nekk à Mboro équipe bi doon équipe doomu Mboro yi te ñun loolu la ñuy bëgg te loolu la ñuy la ñu am. Euh, am na leneen li nga xamante ne Euh, gëjoon na fi am dindi woon nañ ko fi mooy petit catégorie yi junior ak dafa am benn académie bi nga xamante ne bon euh, amutoon récépissé bon ñoom tam ñëw euh, fusionné ak ñoom genre genre ko production xaw ma nag nan lay def bon nan la ñuy def noonu bokk ak ñoom kooku mi ngi basé wu mbaaw mi ngi basé wu mbaaw kooku vraiment académie bu baax la parce que temps yii yëpp ñu ngi jaay ay jour académie bu baax la. dem nañ fa gis nañ ko parce que man la may wax ni la ma doon wax sànq sax loolu la moo fa ñoo fa ñoo fay nekk nii am nañ fa ay boy yi nga xamante ne ñu ngi fa actuellement bon ñooñu tam ñu bokk ak ñoom ñoom ñooy junior bi ak cadet bi dañuy dañuy compétir senior junior ak cadet euh, au niveau si euh, si noowu si championnat bi noowu ñaay FC loolu daal mooy jàngatu voilà kii bi quoi te loolu loolu daal dañ koy bëgg a bokk ak waa Mboro yëpp quoi bon terrain bi xam nga doon terrain ñaay FC terrain bi terrain ñëpp la tey jii nii ñaari FC mënoon naa ñëw di fi entraîné góor gu ne dafi entraîné keneen dafi entraîné mu doon ay tiraillement parce que terrain bi ñoo waa Mboro ñu ngi fi ñoom ñëpp terrain bi léegi ñoom ñoo ko moom ñëpp ko bokk loolu nag moom moo tax ñu ne nañ commencé fële tey suñu amee pour recevoir fii dañuy recevoir fii ñu ñëw si waxtaan ba jubóo si rek quoi. macha allah kàddu yi am na solo xam naa dinañ ci ñëwaat ci beneen émission pour leeral kaawu ñaari FC bu baax mais euh, coach Goulougou yow euh, gis ngeen ni changé nañ tur bi tur bi jógee nekkatu éthique si def lettre de désengagement bi mu def léegi ñaari FC la que grand Cheikh de ànd na ci ay leeral su ci préparation match yeeg fi ñu recevoir yow ban jàngat nga am ci loolu. waaw man sama sama jàngat nag dina dina uute tuuti ak bu bu grand bi ah tuuti rek parce que man je pense que ni ce sont les ICS ñoo ñoo indi ñoo indi tiraillement bi quoi. ICS moo indi problème bi yëpp quoi parce que man mënoo wax ETICS de Mboro mu amul euh, un lettre de désengagement boo def te mënoo cee boole waa Mboro yëpp. man loolu pour man photo eh, eh, photo ICS la quoi man pour man bi ñuy bi ñuy jël décision boobu dañoo waroon woo acteur football mbooro bi yëpp ñu waxtaanee ak ñoom ci loolu quoi. su ko defee jëpp kon coow li fi am yëpp du fi mën na fee bañ am parce que man je vois mal tey EDIX di am petite catégorie te ñuy wax ñaay de mbooro nga dem jël ay petite catégorie yi dëkk ba dakaar ñu koy war a nga bàyyi say doomu dëkk ñu toog di taxawaalu man loolu moom d'accorduma ci. waaw loolu d'accord nañ wax dëgg rek suñu wax dëgg wax dëgg pour wax dëgg rek mhm. mënoo nga ni ñaay de Mboro nga dem jëli ay petite catégorie bu nekk Dakar di fubal ñaay de Mboro d'accord ma te te petite catégorie bi bëri fi ba bëgg dee Mboro comme li ñuy wax sànq ba léegi talent ñi ngi fi ay ñun ñun ñun parce que ñun guney Mboro man sax je suis mal placé di ci wax mais dama nekk doom Mboro moo tax xëy na ma ciy wax parce que man maa ngi bokk guney Mboro ñun ñu ngi ñu ngi ci catégorie junior catégorie senior mais da ngay gis ñun bu ñu waree bu ñu waree def ay bu ñu waree def équipe junior bi mais sax quoi yow da ngay soxla presque vingt cinq personnes mais plus de cent cinquante booy ñooy taxaw sa kanam doo xam soo neen après loolu c'est des problèmes nga am lu mel ni Eriksen mu nekkoon fi ñu ñu changé tur beeg ñàkkoo changé man loolu ça importe peu parce que man pour man sax tur bi ça rime avec Mboro quoi ñaay de Mboro moom pour man ça va quoi nice amul changé amul def dara pour man d'accord naa ñaay de Mboro bi quoi mais nag dañoo waroon dellusiwaat au niveau de Mboro woo waa Mboro yi loolu muy dëgg ñu waxtaan bu ñu waxtaanee ñu ne kat ñun ECS dafa désengagé wu totalement ci équipe bi bëggatul gis turam bëggatul ay ay suñuy ay mayo ay mayo ETICS ne ci bëgguñu Indorama ne ci su ko defee ku nekk wax sa xalaat ñu xam ni ñu koy tëggee ñoom ñoo fi ne kenn du ko jëlee seen loxo parce que ñoo fi ne parce que mandat bi jeexagul dañoo xam dëgg leen fal moo leen di folli wala bokk leen fal fekkee mu ngi fa ñu bàyyi leen fa ba tey parce que ñun amuñu problème yooyu mais problème bi mooy ni ñu ko doxalee moo xaw a doy waar dañoo waroon woote waxtaan ñu waxtaanee affaire bi nga xam su ko defee jëru ñu dem Dakar quoi dañuy toog fii ñu defar affaire bi parce que doomu Mboro yi nekk fii gisoo lii lépp ay doomu Mboro lañ ñëpp dañuy taxawaal après te amoon nañu yaakaar ci EDIC si ñoom hormis Guney Mboro te Guney Mboro mënul jël ñëpp quoi Guney Mboro 25 la mën a jël te te du Mboro rek day jël Daaru day jël Taïba Ndiaye day jël Mboro comme mënuñoo dem mënuñoo dindi waa Daaru mënuñoo dindi waa Taïba Ndiaye mënuñoo dindi aussi ku jóge Tivaouane bëgg a ñëw fubal kon donc bu EDIC si nekkoon fii aussi dina gën a alléger affaire bi ci Guney Mboro mais actuellement nii day andi beneen problématique ci au niveau de Mboro parce que jeunes yi taxawaat ren dina bari lool lool lool lool lool sax te dix te dix te dix loolu malheur boobu la def ci au niveau de Mboro parce que petite catégorie bi mu jël fee junior senior bi junior cadet bi mënoon na ñëw fi Mboro mu jël ko même bu ñu ko yóbbu Dakar ñu jël ay boo yoo xamante ñoom bëgg nañu dem Dakar toog foofu ñu dem toog foofu ñu entraîné leen bu ñu recevoir Tivaouane xayrun bu ñu recevoir Thiès aussi Dakar parce que seen kii bi yëpp ci région bi la bokk parce que Kayor Foot daloon Dakar bëgg a recevoir Dakar nekk parce que région de Thiès nga nag ñu gën koo yaatal waaw Mboro bokk ci affaire bi ñu waxtaane ko parce que coow li fi am jaru ko dañu waxoon dëgg kii euh, le président Mbaye Sow comme li grave wax ñu koy ñaanal yàlla bàyyi ko sunu kanam ak fan wu gudd te mu ànd ak wér lool trop sax ñu ngi koy ñaanal lool mu ànd ak wér lool sax man xam naa yéeneem quoi ci éthique bi parce que man man am naa for naa ci yooyu béy que ni moom sax bu seyoon mu bàyyi keneen ñëw jël équipe kon kooku bëgg na bëgg na waxtaan mais xëy na aussi entourage tamit mën nañ ko mën na ko mën nañ ko conseil lu mel noonu quoi ne ko léegi kon nañu woote mu yaatu même bu dul ren sax déwén ñu jëm ci comme li gannaaw bi wax boo xamante ni bon c' est ce sera participatif et puis ñëpp bokk ci ñu xool nan la ñuy def équipe bi avancé parce que ETICS moom mënul jógee Mboro parce que dafa am histoire bi fi ne histoire boo xam ETICS moo fi am bàyyi ko fi mënu fee jógee te bu yàggee nag ni mu toogee Dakar noonu day dem ba seey ci seey Mboro quoi Mboro dootuñu xamuñu kon mooy ETICS boo demoon bay bëgg recevoir fii sax problème lay doon parce que duñu xam équipe bi loolu amoon na fi mais day gën a yokk problème bi pour man cause parce que affaire wessul comme le grand bi wax ñu toogaat quoi ñu waxtaan affaire bi ñu waxtaane ko xool ñi nga xamante ñoo bëgg parce que aussi affaire tamit waxtaane ko yaatal ko aussi ñu jël ñoo xamante ne aussi bu ñu ñëwee pour yàq affaire bi la aussi c'est pas intéressant man li may wax chaque jour ñi ngi dajee pour affaire bi nangu affaire bi nañ toog ñu xool aussi bu ñu ko jëlee ñan ñoo ko yore c'est important parce que yor bi aussi dafa am solo parce que euh, national une bokkul ak national deux bokkul ak division régionale division régionale lu mu bari bëri mbuur nga yem lu mu sori ba sori mbuur nga mais division national mën nga dem ba Kédougou mën nga dem ba Ziguinchor te yooyu c'est des frais yoo xamante ni sa waay il faut am doole pour yore ko xam nga moo tax nañ ko waxtaanee nañ ko waxtaane ko man loolu daal mooy mooy doon sama kàddu ci affaire éthique boobu quoi si euh, si defe naa ne Pape Gueye li mu doon wax si problème mu éthique ñu waat fii loolu la ñu wax ma ne ko loolu du weesuwut peut-être ne yàkkamti la ou bien bañul mu dem mais nag euh, xam naa ne waxtaan moo amagul rek quoi ndaxte tey su ne ay nit jiitee benn affaire Euh, ñu ne dañuy doxalee ne peut dina am ñi nga xamante ne duñ ko rafetlu bon te suñ sañoon tam nañ bëgg nañ xalaat lañ koy doxalee peut ñoom tam dañuy defee ne seen xalaat mooy xalaat bu rafet bi parce que niñ si waxtaanee ñun dañuy ne su ñëwee fii dinañ am problème si terrain bi su ñëwee fii dinañ xat si terrain bi dinañ xat mboor tout ça moo tax ñu ñu ñu ñu dem fële préparer voilà yë yóbbu fëlale mais lépp mbooro la donc kon loolu mu ñëwaat mu dellusiwaat du jafe li doon jafe mooy ñu jël lépp dëkkal ko foofa wut fa ay secrétaire euh, coach yi ñoo leen di fay course yi président bi moo leen di fay donc kon ñun dañoo jël suñuy kéeg yëpp teg leen fële mais licence yi ñoo koy defar même euh, académie boobu licence yi ñoo koy defar voilà suñu secrétaire général moo koy defar donc kon loolu la mais suñu waxtaan rek dinañ juboo dañuy jéem rek euh, ngeen fexe ba ñaari camp yi voilà toog jàkkaarloo bon ñu waxtaan parce que lu leen lu ñu waxtaan mayut rek waa ay waxi mbedd yooyu duñu ko may duñu ko may wax yi nga xamante ne du egg boroom du ko jot mais suñ toogee fii ñun ñaari camp yi toog waxtaan defe naa ne euh, su boobaa dinañ wax ñu dégg dinañ euh, ñoom dinañ wax ñu dégg su boobaa dina am benn benn benn entente parce que ñu ñoo bokk mboro ñoo bokk mboro ñoo bokk lépp ñoo bokk nawetaan yi kii kii lu ma ne ko defal mu def ko sama boy la ku sérieux la ku sérieux la problème bu mu am dama koy wax ma jiitu ko si ma ñàkk ko si jiitu ma dàq ko jàng mu dàq ma jàng seetul loolu franchement parler sama waayal nag sama dama koy tooñ ndax sama idole nga dama lay dama lay si yow laay roy parce que dafa ma jox boppam daf jox boppam li mu wax nii moom moo njëkk moo jiitu si moom même booy bi ko ñëw jox ko nii sax nii euh, kële euh, moom mooy parrainé sama sama doom bi booy bi nii mooy parrainé sama doom kase billaay wallaay mooy parrainé Lamine barki démb Ndiaye dama woo ne ma tàll yi nangam ma ne ko wala sa tonton mooy sa parrainé man du ma la jëndal dara da ko woo mu envoyé ko xaalis mu jënd dàll démb barki démb la ma koy wax fii donc kon euh, man mbooroo bañ maa boole seen bopp dëkk ma fi si de Diourbel mais def naa parce que Lamine fi la juddoo donc euh, am naa fi li nga xamante ne tax am na waa Mboro yi nga xamante ne amuñu ko fi Mboro euh, stade bi terrain bi xam nañ ma fi ñëpp xam nañ ma fi te sport lañ ma xamee mënoon naa sama morom yëpp décroché nañ mais c'est que man sport moo ma tooñ sport moo ma tooñ parce am activité bi nga xamante ne mën naa ko télé su ma toogee nii jóge naa sama kër ñëw te pourtant mënoon naa toog ba match bi tas parce que boo yi may délégué yëpp maa leen di jiital mun nañ mun nañ damay ñëw rek assister su problème amee ma réglé ko dem toog ñu jox ma cër loolu nag quoi franchement parler vraiment noonu la demee daal euh, euh, kii ak étis ak euh, ak population. xam naa dinañ ci ñëwaat beneen émission leeral ko amaat dégg nga ci gars yi yow ban ban jàngat nga am waaw Modou xam na man moom du ma ci sori. parce que comme ni mu ko waxee. Mhm. waxtaan amagul déjà. parce que yaa ngi dégg ñii suñ tiire wax fii ñeneen jëm tiire wax wax mhm. lële. Mhm. te waxtaan ak faa mu am. Mm. yaakaar naa laaj na yeneen échéance yoo xamante ne dinañ mm. si toog tous les acteurs mm. ñu waxtaan ak ñoom mais en tout cas li ma ci mën a wax lu ndaw daal mooy Mboro mérité na am un club professionnel boo xamante ne wute na ak éthique bi fi nekkoon parce que éthique éthique ñun ah su dee am na satisfaction en tout cas yaakaaruma ndax waa Mboro gis nañ seen bopp donc on mérite d'avoir un club boo xam ne suñuy doom dinañ am possibilité wane fa seen talent wane seen bopp tekki ci football donc loolu nag dara mun waru ko mën apporter booy lu dul am un club bien structuré boo xam dina am ay infrastructure yu doy donc di lancer waat appel rek tous les acteurs ñu bàyyi tiraillement bi yenn coow yi ñu toog waxtaan joxe information yi leer yi AG boo xamante ne voilà ñi nga xamante ne yaakaar na suñ jëlee équipe bi dinañ ko mën defar ñu jël équipe bi boole ci les techniciens les entraîneurs mettre daal sur la table pour mën liggéey équipe bi ñëpp mën cee gis seen seen bopp en tout cas su dee génn na ci loxo yi ICS rek ñun yaakaar naa liggéey bi war na gën mën yomb autonomie war na gën a mën am pour ñu jël suñu ay propre décision quoi au niveau communal macha allah ma jàngat am na solo